yoo xamante ne ay xéwal la yu yàlla defal doomu aadama yi dañ koy jël dépensé ko ci yoonu yàlla subhanahu wa taala kon mu ne wa mimma razaqnahum yunfiquun yàlla ne na walladina ba tey mu ngi wax gaañ ragal yàlla mu ne ñoom ñooy ñi nga xamante ne yuminuuna dañuy gëm bima ci alquran yi nga xamante ne unzila wàcceef na ko ilayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wama dañuy gëmit téere yi nga xamante ne unzila wàcceef na ko min qablika jiitu la yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñoom ñi ragal yàlla dañuy gëm alquran dañuy gëmit téere yi nga xamante ne yàlla wàcc na ko mu jiitu alquran waaye nag gëm gi ñuy gëm alquran ak gëm gi ñuy gëm téere yi jiitu alquran wuute na téere yi jiitu alquran dañuy gëm ne yàlla wàcc woon na ay téere ci ay yonanta. téere yooyu nekkoon ay nekkoon njub ñeel doomu aadama yi nga xamante ne doomu aadama yi bu ñu jëlee seen dund dëppale kook njub loole am ngërëmal yàlla fii ci àdduna am ngërëmal yàlla bu yowmal qiyaame waaye it du gëmuk jàng ko du gëmuk xool la ca nekk ay santaan jëfe la ca nekk ay tere ñu bàyyi waaye dañuy gëm daal jumlatan ne yàlla wàcc woon na ay téere téere yooyu njub la woon loo xamante ne yàlla dafa diggal doomu aadama yi ñu jël seen dund dëppaleek njub loolu leen noonu la ñuy gëmee téere yi jiitu alquran waaye nag alquran dañ koy gëme ne wax la ju yàlla wax nekk melokaan ci ay melokaanam dañuy gëmit ne alquran dafa mat sëkk yàlla moo ko wàcc te moo koy aar dañuy gëmit ne alquran yàlla daf ko wàcc ngir mu xàllal ñu yoon yi nga xamante ne moo jëm ci yàlla dañuy gëm ne alquran euh, ci lañu mën a amee texeeg àdduna ak texeeg alaxira ni ñuy gëmee alquran mooy jël alquran def ko imam topp santaane alquran mooy tundu ko li nga xamante ne moo di tere alquran kon loolu mooy gëm alquran loolu mooy gëm téere yi jiit alquran borom bi ne wa bil axirati hum yuqinuun ñoom ñi ragal yàlla daal dañuy xam maam yuqinuun mu ngi jóge ci yaqin dañuy xam xam xam bu àndul ak sikk ne àllaaxira mënta ñàkk faw mu am dañuy gëm gëm gu ànd ak dogu bu àndul ak benn sikki ne bés penc faw mu am bés la boo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala ci lay dekkal jaami rek la leen ku ci nekk mu fay la la nga xamante ne moom nga doon jëf ku ci nekk mu fay la la nga xamante ne moom nga doon jëf euh, baatu bi yaqin ñaari dañuy faral di dégg ñu koy firee ne mooy kóolute ñu ne nit ki na jaamu yàlla ba am kóolute ndax yàlla moo wax ne waabud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin jaamu sa borom ba am kóolute kóolute gi mooy lan ba mu wóor na ne yow mii di nga am ngërëmal yàlla bu boobaa mën ngaa wàññi wala mën ngaa bàyyi waaye yaqin du firi loolu yaqin li muy firi ci laaya boobu moom mooy dee ndax yàlla subhaanahu wa mu ngi nett ci alquran ne ñi weddi yàlla bu ñu tàbbalee kër mbugal ba malaaka bi dikk di leen laaj waaw maa salakum fi saqar yéen ñu leen dugal ci kërug mbugal gii lay nekk seen tontu dañuy wax naan lam nakun min almusallin wa lam nakun nutcimu almiskin wa kunna naxuudu ma alxaidin wa kunna nukadibu bi yowmi ddin xatta ataana alyaqin daawunu julli daawunu leel miskin dañ daan ànd ak xuuskat rek di xuus lu naqar yàlla dañ daan weddi bés penc ba dee dikkal ñu kon nag yaqin foofu li mu firi moom moo di dee waaye ci laaya ji li muy firi mooy dañuy xam xam-xam bu àndil ak benn sikk ne àllaaxira mënta faw mu am yàlla dekkal mbindeef yépp rek la leen ku ci nekk mu fay la mu doon jëf yàlla nag jeexale melakaanu muttaqiin mu ne ika ñi ma leen doon nettali ñii ala hudan ñii day ñu ngi ci ak njub ñii seen dund mu ngi tegu ci ak njub njub nag fu mu bawoo mu ne min rabbihim nag gaa ñii ñu ngi ci ak njub bu bawoo seen boroom ñoom wa ulaika ñi daal hum ñoom dong nag al muflihuna ñoo ñu taxe ñoo taxe fii ci àdduna ñoo taxe fii ci alaxira hum gi lenn ci borom xam-xam ñu ne mubtad mooy ñaaral mubtada ji muflihuna di xabar ji hum ak xabaram nekk xabaru ulaika mooy wa ulaika ñii daal humul muflihun ñoom dong nag ñoo texe texe ak àdduna gi ak texe ak alaxira kon nag daanaka juróomi aay yi jàll yàlla subhaanahu wa taala daf ci melal benn kuréel muy muttaqiin ñi ragal yàlla ñi ragal yàlla mooy ñi nga xamante ne seen xol dafa set nit ki bu xolam laabee xol bi dafay nangu ak njub bu xol bi nangoo ak njub xol bi dafay commandé cër yi cër yi tàmbalee jëf bu fekkee xolub doomu aadama bi sell na laab na maam ñaari bunt yi ci la njub di jaar ba dugg ci moom mooy bëtam ak noppam bu fekkee nit ki xolam sell na laab bu xoolee ak njub def ci xalaat njub li jaar ci bët bi tàbbi ca xol ya bu fekkee nit ki xolam sell na laab bu déggee ak njub def ci xalaat njub la jaar ca nopp bi àgg ci xol bi njub li nag bu dikkee nag ci xol bi ba xol bi nangu ko xol bi dafay daal di commandé cër yi cër yi tàmbalee jëf looloo tax ñii ba ñu gëmee yàlla seen xol sell ñu déglu njub li njub li dafa dugg ci ñoom ñu gëm kumpu ñu taxawal julli ñu joxe asaka ñu gëm alquran ñu gëm ne alaxira am na waaye bu fekkoon na xol bi dafa tëju même bu bët yi xoolee ak njub njub gi du dugg même bu noppa yi dégloo ak njub njub du dugg loolu moo tax ki yàlla yónni woon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ci biir doomu aadama bi am na benn suux suux boo xamante ne bu baaxee sell rafet taaru cëri doomu aadama yépp dafay baax waaye suux boobu bu tilimee salte ñàkk sell dundul cëri doomu aadama yépp dafay yàq loolu moo tax yàlla ne moom yàlla ku mu nar a jubal yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yu an an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan xaraja ku yàlla nar a jubal dafay ubbi ca dënn xol ba sell bu njub tàbbee xol bi nangu njub cëri daal di koy jëfe waaye ku nar a sànku nag sob xol dafay nëbu dafay ubbu njub du dugg ci xol boole kon ñii ñooy kuréel bu njëkk bi ñaareel kuréel bi yàlla ne inna alladina kafaru bam ñu waxee gaa ñi ragal yàlla ak lenn seen i melokaan nag ndax ñi ragal yàlla seen i melokaan du melokaan yàlla wax donc ëpp na foofu le seen i melokaan yëpp daal moom moo di alquran yàlla nag ñëw nag ci ñaareelu kuréel bi muy kuréel bi nga xamante ne seen xol dafa muuru ñoom gëmunu yàlla ñoom danoo wer di yàlla mu ne inna alladina kafaru ñii nga xamante ne danoo weddi yàlla mu ne a andartahum nga waar leen am lam tundirhum wala nga ñàkk leen a waar sawaun alayhim moo yem ca ñoom wala boog nga ne sawaun alayhim moo yem ca ñoom a andartahum sak waare am lam tundirhum wala sak ñàkk waare ñoom laa yumin duñu gëm kuréel baa ngoog ñi nga xamante ne dañoo weddi yàlla seen xol dafa muuru gëmuñu yàlla gëmuñu alquran ñooñu moom nga waar leen ak nga ñàkk leen waar moo yem ca ñoom duñu gëm lan moo tax ñoom ngëm li mënta tàbbi seen xol ba ñu nangu ko ba jëfe moy khatam allah ala qulubihim yàlla subhanahu wa taala mo kaste sen xol ya xol ya ngëbu xol ya ubu wa ala sam'ihim yàlla kaste sen deug deug nop ya fat wa ala absarihim ghishawa muray mo nek sen beuti ya ba mënu ñoo gis li nga xamantene mom modi deug mu ne wala hum ñii day ñeel na len adabun bugal azimun bu mag kon gis nga ni bokkuñu ak ñële ñi jàlloon seen xol dafa ubbeeku seeni xol dafa laab dafa sel ba xol ba ubbeekoo laab sell maam yoon yi njub di jaar muy bët ak nopp dafa dal ubbiku ubbeeku nga xamante ne bu njub lu ñëwee rek day jaar ci bët bi dem ci xol bi bu njub li ñëwee day jaar ci nopp bi dem ci xol bi waaye ñii nag bunt ya njub di jaar dafa fatt mooy xatama allahu ala xol ba moo jëkka muuru nëbu ñaareel ba mooy nopp ya tëx ñetteel ba mooy bët ya muuru pourtant day ñoom mën nañoo xool di gis ay réalité mën nañoo dégg wax waaye nag xool njub settantal ko mu dugg ci xol bi wala boog dégg ak njub settantal ko mu dugg ci xol bi loolu lañu mànk moo tax mu ne xatama allahu ala wa ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أذيب maam ñooñu day ñeel na leen mbugal mu tar ñi la mu ne wa ulaika humul muflihun ñii day ñooy ñu texe fii ci àdduna ak fële ci alaxira ñii nag mu ne ñeel na leen mbugal mu tar ngir sabab bu weddi nga xamante lañ koy weddi yàlla kon nga ne kuréel bii muy kuréelu ñaareel bi yàlla yàggul seeni mbir yàlla yàggul seeni mbir li tax yàlla yàggul seeni mbir ndax seeni mbir dafa leer dafa ñoom dañoo manifester wax na ñoom gëmunu yàlla moo tax ñoom seeni mbir jarte guddal waaye nag ñetteelu kuréel bi mooy ñëw ñetteelu kuréel bi ñoo ëpp danger kuréelu ñaareel bii ñetteelu kuréel bi mooy ñi nga xamante dañuy feeñal ak ngëm yàlla di nëbb ak kéefër ñooñu mën leen mënuloo leen situé fenn ndax suñu dajee yow feeñal ngëm yàlla bu ñu fàddoo maam feeñal li nga xamante ne mooy ak noono ak kufru kon nag boppi saar bi ñetti kuréel yii lay wax kuréel bi dëkk mooy ñi nga xamante ne dañoo ragal yàlla ngëm yàlla manifester seen xol manifester seen i cër ñaareelu kuréel bi mooy ñi weddi yàlla weddi ga manifester seen xol manifester seen i cër ñetteelu kuréel bi nag mooy nga xamante ne mu zabzabina bayna dalik ñoom nangu ñoo fësal la nekk seen xol yi dañuy feeñal ngëm yàlla rawatina bu ñu dajee ak julit ñi di nëbb ak kéefër bu ñu dajee ak julit ñi waaye nag bu ñu delloo ci yéefarit di leen feeñal la nga xamante ne ñoom moom fas seen xol yi kon nag kuréel bi ñoom ñoo ëpp danger dañu ñu dugg ci julit ñi di àndandoog ñoom bu ñuy julli di àndandoog ñoom bu ñuy di àndandoog ñoom di saraxe di àndandoog ñoom di aj mag waaye loolu yépp nag dañ koo def ngir ñongal seen deret ngir mucc loolu moo tax seenu jaamu yàlla ñoom bokkul ak jaamu yàlla jullit ñi ñoom bu ñu jógee di jaamu yàlla seen jaamu yàlla dafay diis gan jullit ñi nag bu ñu jógee di jaamu yàlla seen jaamu yàlla dafay woyof tol ci ñoom lu tax jullit ñi seen jaamu yàlla di woyof mooy xol baa nangu ba xol ba seeni xol nangoo cër yi dafay sawar lool pour jëfe waaye ñetteelu kuréel bii dina ñëw seeni melokaan seeni xol nanguwul looloo tax ba ñu bëggee pratike pratiquer dafa dis gànn ci cër yi loolu yàlla ne wa ida qaamu ila sola qaamu kusaala yuraauuna annaasa wala yadkuruuna allah illa qalila ñoom naafiq yi bu ñu jógatee jëm ci julli dañuy ngistal dañuy ngistal ànd ak tayal lool ndax julli ga def wala boog jaam yàlla ga def dafa diis gan ci ñoom kon borom bi ne wa min annaasi am na ci biir nit ñi ci biir jullit ñi ñoo xamante ñu ngi àndak ak jullit ñi min gi du bayaan yi waaye tabii di mooy jullit ñi am na seen biir ab kuréel boo xamante dañuy mboowoo jullit waaye nekkuñu ay jullit wa min annaasi am na ci biir nit ñi man ñoo xamante ne yaquulu dañuy wax ah man naa gëm nañu man gii dañ koy jëfandikoo ci kenn wala ci ñaar wala ci mbooloo li tax yàlla wax yaquulu mu ñëw nekk kenn ngir baatu man ji waaye mbooloo lay firi ndax li tax muy firi mbooloo mooy wax ja ci topp aman naa dañuy wax mu ne am na ci nit ñoo xamante ne foo dajeek ñoom rek ñu ne aman naa ñun day gëm nañu di ko déclarer seen làmmañ yi aman naa ñun gëm nañu billaahi ci yàlla wa bil yawmil aaxiri gëm nañu it bés pénc yàlla ne wama hum bi muminin dañuy wax rek waaye ñoom gëmuñu ñoom bu ñu dajeek yow dañ naan la ñun day gëm nañu yàlla ñun dey gëm nañu ne alaaxira am na waaye yàlla nee na wamaa hum bi nii ñoom gëmuñu lan moo tax yàlla ne wamaa hum bi nii ñoom gëmuñu te ñoom ñu ne gëm nañu seen làmmañ mooy yàlla moo xam la ñu fas ñoom seen xol yi xam nga ñun doomu aadama yi nit bu ñëwee ci ñun ne ñu gëm nañu duñu mën a xam ndax ngëm googu nekk na ci xol ba wala déet ndax li ñuy xam mooy li nga xamante ne tudd na ko ci làmmañam suñuy nopp dégg ko waaye yàlla mi nga xamante nag moo xam li teew xam li nëbbu xam li doomu aadama yi di feeñal xam lu ñuy nëbb seen xol yi mu xam ne ñii kat dañoo wax ne gëm nañu ngir mën a mucc ño seen deret ñonga seen alal waaye ngëm gi faswul seen xol mu ne hum bi muminin ñii day ñoom gëmuñu yàlla subhanahu wa taala yàlla neen yu xaadicuuna allaha ñoom day dañuy jéem a trompé yàlla ca la ñu foog ñoom dañuy jéem a nax yàlla ca la ñu foog seen njort ñoom waaye xam nga ne yàlla moom kenn mënu koo nax ndax moom peek na mbindeef yépp ci xam-xamam ci degg nam kàttanam féet na kaw kàttan mbindeef yépp mooy ki mën a taxaw boppam doomu aadama yépp dañoo ñàkk dañ koo soxlawoo waaye moom yàlla soxlawul kenn moo tax kenn mënu koo nax kenn mënu koo trompé waaye nag ñoom nag lañu naan gëm nañu di ko feeñal di nëbb ak kéefër dañoo foog ne yàlla la ñuy nax waaye seen bopp moo tax mu ne yuxaadiuuna allaha dañoo foog ne dañuy jéem a nax yàlla والذين آمنوا دانيو فوك نيت من نانيو نخ يوننت بي اك جوليت ني واي يالني وما يخدعون نيوم نخو ني نيوم ترومبيو ني الا انفسهم لول سين بوب نا وما يشعرون واي ييغو نيوكو نيوم ييغو ني نديكتي يو لي ني ديف ييب سين بوب لاي ديل لي ني دجان لي ني واخ نان گم نانيو ا گم نانيو جيبول نانيو داني براتيكي داني جيف لول ييب دانيو فوك نيت جوليت ني لي ني نخ دانيو فوك نيت يالا ني نخ waaye seen bopp la ñuy nax ndax yàlla dina wuññi la nga xamante ne ñu ngi koy nëbb seen xol yi kon nag doomu day yi ñu déglu fii ci rajo Dunya seen émission tafsirul Qur'anul Karim ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq